<laughs> Walf Quotidien lam ñu dikkee <laughs> waaw Walf Quotidien dafa xëyee dellusiwaat ci accord bi nga xam ne dox nañ faa dugg noonu la ko yéene gii di Walf fu mu toll nii rapatriement leneen lu fës ca tribune yéene gii di la tribune dafa xëyee dellusiwaat ci mbiru góor jigéen boobu nga xam ne la ñuy tàll fële ci Léona yéen kaay gi ne enquête bi fu mu toll nii ma ngay avancé am na lu ci tolloo fukki doomu adama ak benn yoo xam ne daal fexe ba sénégalais yi nga xam ñoo dugg ci réew moomule ñu jëm xool naka lañ dellu soir fii ci biir réew noonu la ko yéen gi di source xëyee fësale bi di le peuple quotidien le peuple yéen kaay ne fiche de parrainage Ousmane Sonko désiré nee na ñett waa Sénat kon ñoo jox digal waa désiré ngir euh, ñu jël fiche de parrainage yi jox mm-hmm. kii di Ousmane Sonko waaye kii di Thiendella Fall dafa lànk ni du ko defee ndax Ousmane Sonko turam nekkul ci liste électorale yi noonu la ko yéen kaay gii di le peuple xëy fësal Sud Quotidien fa la desandi yéen kaay gii Sud Quotidien ne refus délivrance dossier bu collectif parrainage Ousmane Euh, kii di waay waa DG nee na ñett ne daal duñ ci ànd euh, tax kii di Valdiodio Ndiaye di la euh, ak moom it naka noonu ba ci a tabbi ci gudda ne dañ ko jël jox ko nga xam moo di Ousmane waa waa DG dañoo lànk ne loolu yi duñ ko jëfee tax yéenekaay ngeen jégal ma waaw tax yéen gi jël kàddu gi daal di koy jox ku ci mel ni eh, Ndiaga Sylla jox ku ci mel ni Seydina Oumar Touré mhm. ba ci Aliou Tine kenn ku ne joxe na ci xalaatam mu ngi ci yéen kaay gii di 24 heures donc eh, yor yor bi yéen kaay yor yor xëyee dellusiwaat ci lu ni mel neen DG tey ji la gën a ñooy mooy ne Euh, Ousmane Sonko du bokk ci élection présidentielle yi di ñëw nee daal lu jëm ci ay liste de parrainage du ko du ko ko jox mm-hmm. donte le savoir séna sa konoon sa konoon du lu mel ci moom noonu la a kaay na Thiendella Fall moom dafa jaan fa Thiendella la ko yéen gii di l'info xëy fësale Abdoulaye euh, leneen lu fës ci ci lu jëm Euh, ci euh, maanaam yéenekaay gii di euh, la quotidien le quotidien mu ngi ñuy dégtal lu aju ci xayma gi ANSD mujjee def te mu ñeel li mu doom aadama yi ne ci Sénégal nee nañ góor ñee ci ëpp ah. mm-hmm. nañ léegi góor ñee ëpp jigéen ñi xam nga bu njëkkoon dañu wax ne jigéen ñu ëpp góor ñi mm-hmm. waaye waa ANDC mm-hmm. ñu ëpp jigéen ñi fii ci Sénégal noonu la ko yéen kaay gi xëy fësale Mbàkke nag mooy dëkk bi gën a peuplé ci Sénégal noonu la ko yéen kaay gii di la peuple le côté ña xëy fësale euh, soleil lu mu ñëw dëkk euh. aménagement zone économique spéciale intégré fële ci Dias travaux président Macky Sall lancé na ko euh, yéen kaay kon loolu xëy dellu si waat tey nee nañ ma ngay woon ak ndaw ñi ngiir ñu jéem a profité ci xëy bi nga xam ne ni daanaka mën nañ ko am ci foofu foofule mhm. moo gën ñuy mbëkk gaal yi naan dañu utali fële ci Europe noonu la ko yéen a kaay yi la solay xëy fësale yéen kaay bi di stade euh, suñu lamb suñu lamb yéen xëy dellu soit ci open press mi nga xam ne Ama Baldé doon na ko amal ni ki fan yi ñu génn fële ci stade Alassane Djigo mhm. Ama Baldé moom daal digg na askanu Pikine ne incha allah titre roi des arènes